ñu yóbbulu koor ñii dikk woon ak nag ci li nga xam ne mooy koor ci luxa ak ci li nga xam ne moom mooy istilaax waaye ñëwaat nañ tey ba tey lan mooy xaaju koor ci ngeeru imam malik ak ngeeru imam shafii ngeeru imam ahmad ibnu waaye imam abu xanifa moom dafa wuute ci ngeeru imam ñoom imaam abu eh, ngéeri imaam abu xanifa ñoom dañu dañ ko def juróom-ñett ñee ñeent lañ ko def waaye ngéeri imaam abu xanifa ñoom juróom-ñett lañ ko def am na lu ñuy wax kooru farata ñu indi nañ ko boo xam ne dañ ko ràññ boo xam nag ràññewuñ ko bu ñu ràññalee mooy bi nga xam ne mooy mooy bisu koor mooy bisu mooy weeru koor bi nga xam ne nag ko mooy fay fay nag moom waxtu waxtu la neex mën nga ko def weer bu la neexee mën nga koo defee waye koor na mom munta nek dul ci wéru koor buñ démé ci def nañ am nañ ñuy wax siyamul wajib ñom am nañ wax siyam bu koor koor koor gu war ñu ne moy koor nizir nit ko lo nizir na man kat passé na or suba su boba war nga or parce que da ko dang ko ragné né suba dana or am na lu ñuy wax nizir bo xamné ne Nizir bi nga ragné lé nizir mutlaq man kat dina mos or fukki fan su boobaa nag waxuñu ne jour bi nga koy or wala jour bi nga koy or waaye nag balaa ngaa génn si àdduna na nga ko or parce que danga ko nisiroon na kooru na ko am nañu koor goo xam ne dañ ko sunnaal koor goo xam ne ko sunnaal jàngal nañ ko bii passé wala koor buñ sopp euh, bokk nañ ci koor yi nga xam ne ko sunnaal mooy or bi su arafa dañ ko fàtte woon démb or bi su arafa bokk na ci waaye nag ki ko war a def mooy ki xam ne moo moo nekk ci dëkkam wuté ki ki nga xamné mom mo nek mak ki nek mak mom sokku ci mom mo or bi su arafa dafa métti moo ñom ñoom arafa warul ci ñom bokku na ci kor guñ sib kor guñ sib ni bokku na ci moy comme niñ ko waxé won japp be japp bis àjjuma mara di ko or do ko lolu sib nek tey ñi delu ci lan moy lan moy suñu tektel na kor dafa war ci jullit bu ñu démé ci alcorane ci sooratu maida ci sooratu baqara dinañ fekk yàlla di wax ne kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun yàlla farataal ci yéen koor comme ni mu ko farataale ñu jiit woon kon koor farata la waaye nag ci ban weer lañ ko def yàlla moo ko fixé ba tey ci alquran ne chahru ramadan allazi unzila fihi alquran mu ne nañ ko def ci weer wi nga xam ne ci la ko tànn gannaaw bu saabaan jeexee ci la yàlla tànn ci lañ war a def li nga xam ne moom mooy koor kon koor am na tegtal ci alquran am na tegtal ci sunna bu ñu demee ci sunna yonti yàlla Muhammad te ñoom ñaar ci la nit mën a sukkandiku pour àtte ci lislaam mooy alquran ak sunna ñoom ñaar rek ñooy ñooy ay àtte ak loo xam ne borom xam-xam yëpp ñoo ci dëppoo jëlee ko ci alquran wala jëlee ko ci sunna bu ñu demee ci sunna yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa boo xam ne Abdullah ibn Omar moom moo wax ne dégg na ci yonti yàlla Muhammad muy wax naan buniyal islaamu ala xams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أبلاء ابن عمر برب خم خم لون ما شاء الله يرتك باريون تيال محمد صلى الله عليه وسلم بأم لم أم بأم لم ينسان ينمو كان فودي قد قد ينتيال محمد مم موحنه ديجنا كينتيال محمد صلى الله عليه وسلم منه l'islam dañ ko tabax ci juroomi ponk juroomi ponk yooyu bu ci njëkk mooy nit ki wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nit ki pour ñu nangul ko mbooleem jëf yi ci topp ak lu mën a jëf ci l'islam ci lu baax pour ñu mën la ko nangul fop baat boobu nga wax ko nga nga tudd ko sa làmmiñ sa xol parce ko gëm ko mooy lan mooy ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mooy ne maa ngi seede amul benn buur bu ay jaamu bi di jëriñ wala ñàkk ko jaamu jaamu du lor yàlla yàlla rek mu am sañ-sañ jaamu ko jaamu ji diñu mu ñu jariñ ñàkk ko jaamu du ñu lor gannaaw bu seedee gëm yàlla yàlla am na na seede na ashhadu anna muhammadan rasulullah waaye nag na seede na yonent yàlla muhammad sallallahu na seede na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mooy dawal yàlla tey gëm lépp loo xam ne dikki na ko ci alxuraan ku gëm gannaaw bu loolu xewee nag mu taxawal julli joxe azaka or weeru koor ak ak njegeen yàlla bi kon lii mooy mooy suñu tegtal na koor kon war nañ ko def incha allah suba danañ dugg ci lan mooy sartay koor lan la incha allah di leen jox daje suñu benn émission bi di ñëw incha allah asalaamaaleykum